ndajeem tey mi kat li ko waral mooy yëpp leeral euh, li nga xamee ni mooy euh, liggéey bi nga xamee ni ak projet yi nga xamee ni xuddaamul xadim daayira bi tudd xuddaamul xadim sëñ Xamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke sosoon ko ci ndigul Cheikh Salihu Mbakke moom lañ doon indi ay leeral surtout rawatina ci ginnaaw am na sorti boo xamee ni euh, commission bi nga xamee ni moo yore wala sécurité am na jama yum jamatoon ci teewaayu pourtant boobu sax euh, police mi ngi teew euh, commissaire euh, normalement bu janatu ah ci kanam yëpp faaye dañoo xam ne civil amul droit di gàddu doonte am nga autorisation ay fetal ak ay kii yeeg yooyu bokk ci nité la doog nité doog nité même boo amee sañ-sañ bi itam war ngaa mën a am nee noo ko def bàyyi ñi nga xamee ni ñoom ñoo yor sécurité bi ñu cherché leen loolu donc ñooñu mën a taxaw pour yor loolu euh, biñ gisee nag ñu yore loolu donc ci leen leen woo leerale leen ne leen lii ngeen def nii euh, donc xuddaamul xaddi ci yi nga xamee ni mooy ay ngëm-ngëmam ak ay pas-pasam dox wut noonu doxul ci leen loo xamee ni dafay indi violence wala dafay indi jiixi jaax ci askan wi li ko tax a jóg mooy jàmm ji nga xam moom la Cheikh Khadim woote woon même buy xeex itam comme ni Sëñ Tuubaa doon xeexee rek waaw ah, inni ujahidu bil ulumi ñun xam-xam la ñuy xeex ak ragal yàlla donc xam-xam boobu nag moom lañ jiital euh, ci biir xuddaam moo tax mu composé ay commission yu bare bari nga xamee ni sécurité moo ci gën a tuuti donc euh, comité bi nga xamee ni mooy scientifique li muy liggéey kenn xamul nu mu toll scientifique rek nga xamee ni sëriñ Saliou Mbacke moom xam Hamza moo ko jiite di ci dox dox yu am solo yoo xam ne chaque jour mu ngi ci. ah commission discipline tam li muy liggéey kenn xamul nu mu toll mais nag yooyu feeñut parce que dañuy dem ci euh, xam nga Touba dafa rëy Touba dafa rëy euh, di dem di sensibiliser nit ñi fàttali leen leeral leen njàngum sëriñ bi nu ñu war a ñëw ci dëkk bi nu ñu war a tooge am na ñoo xam boo leen fàttalee dañuy daal di delluwaat ah daal ko woon daal di delluwaat bu ko defee ñu daal di fàttali ko loolu la ñuy def waaye doxuñu liggéey Cheikh Khadim ndax bu fekkee ni suñ borom dalaa boole ci sëriñ bi ko xéwal gu rëy goo xamee ni nag toog courage la bara ëpp naa def ah delloo njukkal sëriñ bi ci lépp loo xamee ni bëgg-bëggam na ci dëkk bi ñu dox ko lépp loo xamee ni bokkutoon ci bi muy sax ci dëkk bi euh, ñu fexe ba loolu dañ lii rek mooy mais dindi gi nag du dindi ay coow ak ay xuloo wala ay violence wala dara noonu lépp dañ koy def ci lan ci ak teey ak teg akum xel parce que nit ñi ay nit lañ dañ leen di traité comme ay nit mais du ñu ay leneen léegi boo ko defee itam euh, euh, commission bi nga xamee ni comme mu Diop Diawbe jiite na ko ah dafa am ndigal jëmmi gendarmerie ñoo ko soxla jëmbi police ci boppam ñoom ñoo ko soxla préfet bindal ñu kayit ah, euh, ci kii euh, mën naa génne décret yim kii yëpp nga xamee ni préfet sous préfet même procureur tout le monde ñëpp lay liggéeyal chaque jour mu leen di jàppale euh, di wan ci barab bi nga xamee ni saa bu leen leeralee ñoom ñoo koy booleeg trois éléments wala quatre éléments ñu dem parce que xam na ni waa ab civil la amul droit di jàppaate kenn même bu demoon ci mbedd mi itam ba gis koo xamee ni xaj na daa yor lu ñu tere ci dëkk bi dana ko signaler. ak police police ñëw jël si ko loolu mooy lool mais xuddaam amul ay police religieuse yi euh, euh, ci réseaux sociaux yi ñuy wax di sos di ki ak yooy lan la ñu doyee loolu mais ñun ñooy ay jàngkat gëm Sëñ waa xam lépp di ay citoyen nekk ci réew mi xam li ñu war a xam lépp donc amul dara loo xamee ni dañ koy def luy juyoog njàngalem Sëñ Tuubaa lépp luy juyoog kaddu kilifa gi wala luy juyoog état parce que benn système la wala benn dustuur la boo xamee ne mais maa ngi ñoo ci ñëpp dañ ko war respecté musta sa yoonu bopp nit du per yoonu boppam nit euh, bu fekkee da ngaa gis ñuy dox te li ñuy dox euh, di ay loi yoo xam ne dañ ko wote man ci laa euh, bokk ci ñu ko wote ci nga bokk ci ñu ko wote non kooku kenn du violé képp koo gis koo xamee ni te loolu jàng nañ ko rasulullah yi jàngal nañu ko nee na mbooloo kenn du ko beddee ko ah, waaw man chas da chas da fi nahoor ah am mbooloo kenn du beddeeku àndal ak ñoom seen i ngëm-ngëm seen i pas-pas seen xalaat adduna nag wala tan sa nasibaka mina dunya lañ wax ay nit bu ñu waxtaanee ba xool ne lii bu ñu ko doxalee seen adduna mën a jàkk ñoom ñëpp a ànd na jël na ay uh, dogal ay mesures yoo xam ne dañ a éliminer kooku ah kon amul dara lu ñuy kii ak yooyu na ci loolu ñun amuñu problème ak safina amuñu problème ak muqaddimatul xidma amuñu problème al wafa amuñu problème ak benn daayira bu fi nekk euh, maa ngi ñëw ci ñun ñëpp lañ jox loxo ñëpp lañ jox loxo collaboré euh, màggal yi dañoo collaboré màggalu sëñ Abdou Khadir màggalu sëñ Chahib màggalu sëñ Abdou Lahad pourtant ay màggal lañ te pourtant jàmbur lañ seex kii day liggéey fii kii liggéey fi tool sëñ Tuubaa dafa bari da ngay yónnee jëwrin fii yónni fii jëwrin yónni fii jëwrin safri amaan non non bu nit ñi di dugg ci euh, diggante boobu sëriñ Moudou Lo maa ngi moom bii waxtaan nañ ba lu bare bari xuddaam aw tur la ab am na récépissé Safina aw tur la am na récépissé benn bu ne social yi moo ko joxe woon ñun maanaam bu ñu àndul nii ci euh, euh, ci bokk ci benn itam ñun ñoo ànd ngëm-ngëm pas-pas lépp ñoo koy bokk liggéey euh, biñ mujjee daje ah dafa kontaan lool daan ni lépp loo xamee ni xuddaam comme dama kon woo sax mu ñëw moom conférence de presse moom moo ko waroon a def parce que bu xuddaam di def na mbudloo ñëw def ko bu safina di def naa ñuy def ko ñun noon noonu lañ ñun amuñu ay jëmmi Sëñ xanaa du dëgg mais Sëñ Tuubaa ñun amuñu ay xàjjeeg seen amul naan kii di xëcc fii kii xëcc fii xëccoo pour lan ban intérêt moo ci nekk liggéey sëñ rek moo ci nekk kon kon ñun waa safina benn lañ ñun ak ku dul safina benn lañ ñun benn lañ amul amul xajj amul ñaar donc loolu waxtaane ko suñu biir ba buñ xajal kenn muy dugg ci biir naan ay safina li mu bëggoon a liggéey li xuddaam da koy nangu xuddaam lu muy nangu xuddaam dafa yor euh, mais safina yor ay principe boppam te safina bu daanoo wala safina bu liggéeyut mais ñun duñ seetaan yëfi Sëñ Tuubaa yu daanoo jamais ak ku ko a yore te Sëñ Tuubaa du doon jamais ñu koy seetaan muy daanu wala muy am benn problème ah, a dañ koy ko ñun ñëpp benn lañ mais Sëñ Tuubaa que ay ndaw euh, itam bu dee liggéey ay leen ay xale jeune ay ñoo xam ñu bëgg Sëñ ñu jeex sëñ Tuubaa jël seen doole seen lépp kenn fayu leen dara pourtant kenn fayu leen dara waaye nag euh, euh, bi ñu xalaatee nag ñun ñun ñi nga xamee ne xaj na xaw nañoo ci euh, dara sëñ bi ñoo ngi xalaat pour jéem leen a pour xool lu leen dimbalee waaw parce que bi ñu ñëw nag non dañuy engagé wu kenn fayu leen dara jëmi sëñ Tuubaa la ñuy liggéey non non arme kooku passé kooku leeral nañ ko ci commencement arme looy doy arme non non non non laajal ba mu neex non non doy doy ab arme loo koy am nga arme yow mais am na arme keneen am na arme keneen am na arme mais arme pour lan la mais dafa am ay këyit am na mais téel sa arme denc sa ah euh, arme foo a fan arme ah mujj jaww fekkee moom nga bëgg wax même bu yore arme mais police ci biir police dem yor arme fekk waru ko war a yor mais police danaa ko ba ko yore mais moom ci boppam mais amuñu kenn kuñ may ko yore mais biñ gisee ñu yore ko fotowu ko mais dañ leen a woo ci boppam am na comité discipline bi ñoo leen woo tàgg aw yoon nee lii du dëgg lii du def nii xoddaamul xadim du nii kii nangam nangam ah, ay citoyen yi nga citoyen mënut a jubani waram sa nangam nangam ànd حديثة